dafa am benn guddi nag benn nit ku bokkoon ci njiitu diine ya mu ñëw guddi nag di wax ak Jéesu wante Jéesu wax na ko li ko jaaxal te jommal ko lool ndax Jéesu daf ko waxoon ne ku gën ci yàlla fokk nga judduwaat juddu bu bees loolu jaaxaloon na ko lool wante war nañu judduwaat juddu bu bees boo xamante ne du nekk ci juddu yaram wante ci juddu xel bu ñu jëlee suñu xel soob ko ci suñu borom xel mu sell mi nga xam ne moo jóge ci yàlla moo ñu may ba ñu gëm Jésus xel moomu def ñuy mayaat ñu nekk nit yu bees te xel boobu ci yàlla la jóge jëf ñuy wommaat